ci sunu darsu tafsir ci sunu téere boobu di al muxtasaru fi tafsiri al quraan al mu mel ni noo ngi woon ci saar wi nga xam ni mooy suuratul muzammil mu mel ni kon agsi woon nanu ca laaya jooju nga xam ni mooy in سنلقي عليك قولا ثقيلا نون دانو واتيتي يو يو يننتبي القرآن القرآن نك دون واخ خمني واخي برمبي تبارك وتعالى له kon muy wax joo xam ni wax ju màgg la ci ay maanaawam wax ju tedd ci ay melokaanam kon nag lu mel noone lu jara yittewoo la fexe ba góor góorlu ci bu baax am ci am ci cër am ci cër loolu lu am solo la fexe am wàll am cër ci alquran maanaam bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñoñ alquran kon moytu wattandiku bokk ci ñi nga xam ni defuñook alquran nen màngo duñ ko jàng duñ ko déglu duñ ko setantal duñ ko jëfe defuñu ca daal ñoom nen loola dafa bokk ci la nga xam ni mooy Al-Quran, mangok Gadai <clears throat> du mooyu wan gannaaw Al-Quran di deglu kheraulu Gadai Jefe Al-Quran, Manam ci taxaw ca nga xam ne alquran <clears throat> moom la daganal yoonal ko yooye nga ne ca ya nga xam ni nag moom lay tere yooyu nga wattandiku ko te moytu ko gàddaay attewoo alquran ci mboolem tolluwaay yi ci mbooleem anam yi moo xam yu diina la walla yu àdduna gàddaay settantal alquran maanaam di ci xalam di ci méditer gàddaay di jëfandikoo ci wàllum paj alquran ci mbooleem xeeti feebar yi moo xam yu biir walla yu biti kon gis nga yii yépp dafa bokk ci xeetu du mooyu xeeti gàddaay ak sori li nga xam ni mooy alquran moo tax nu ne muskallaf mi war naa fexe góor góorlu ba bokk ci ñi nga xam ni dañuy cëru ci alquran ndax ay kàddu yu màggee noonee ay kàddu yu teddee noonee loolo kan ëpp naa sàggane ba doo ca doo ca cëru tey fi tey rek <clears throat> buñ newoon woon ñi ngi séddale ceeb wala ñi ngi séddale suukar da gis nañ cay sonne ku nekk ngir fexe am ca cër sagam mbana mbana bu tàng jër ngay gis nit ñi di koy xëccoo yaakaar naa vidéo boobu ñu bari gis nañ ko manab ceeb yaakaar naa ceeb la bu tàng jër gaa ñi di ko jiiroo di ko xëccoo mbanam ceeb moo xam ni ma ngay saxaar waaye terewul tàngaay baag yooyee yépp ma ngoog nit ñaa ngi koy baraabe ngir rekk ku nekk mën caa amub tip tip moo xam ni ma ngoog danga ci dëgërloo ngir saaku ba taxaw muy biir ba waaw boo ko ci mënee feesal baax na xam nga kon loolu image boobu tey boo ko gisee waxuma sax li image bi di dégager ci yeneen aspect ci wàllu àdduna waaye boo taxawee rek ci wàllu settantal ni <clears throat> nit di sonnee ci loo xam ni njariñal àdduna la ci wuti donte ay obstacle ñi ngi ci kanamam ndax yaakaar naa ni manam ceeb mu tàng moomee ku ne xam na lu tàng moom ah lu tàng la waaye ànd ak loolu gaañaa ngi ciy xëccoo xëccoo gu metti nga gis ne kon boo dikkee nag ca la nga xam ni moo jëm ci alquran xëccoo googu doo ko fa gis waaw ceeb ba moom mën nañ koo jiiroo bu ne dañuy séddale nangam gaa ñi di ko jiiroo waaye nag bu dee alquran nag moom gis nga kon gis nga muskallaf mi war naa góorgóorlu bu baax ba bokk ci ñi nga xam ni am nañ cër ci alquran moomee inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا وقت وينغا خمني موي وقت يقدي خمني بوخولي تتعمل ساروي ne wonna ko qumillayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila kon digalon na ko santon na ko ne ko jogal nga julli ci guddi gi kon julli googee nga xam ni moom ngay taxawe ci waxtu woowee ci guddi gannaaw bi yaram bi noppaloo tuuti forbat nga jokkoon di taxaw ci yenn xeetu jaamu yi lu mel ni julli njàngum alquran zikr ak lu mel ni settantal xalaat tafakkur tadabbur yu deme noone mu ne waxtu la woo xam ni fa lay gën a jàppandee la nga xam ni mooy teewlu ak ànd bu xol ba di ànd ak yeneen cër ya ci njàngum alquran mi ci julli gi ndax waxtu woowu waxtuk dal la waxtuk tekkaaral la yitte yi da ciy lool sax bu ko defee kon alquran ja day doon lu dégtu ci xol bi xolu ki koy jàng mangoog julli gayit ni ko noonu day doon loo xam ni teewlu ko day jàppandi lool nga gis kon waxtu la woo xam ni waxtu wu jara posewu la muy jamono joo xam ni jamono yi góob ay yiw la boo xam ni nag bés bu jot day baamtu bés bu jot rek day baamtu wuuteeg bëccëg bi nga xam ni yitte yeeg soxla yeeg yëngu-yëngu yi day bari ma moo tax bu ngeen di xool sax ba ci dars yi dars boo xam ni dañ ko enregistré guddi dégtu ga du bokk ak dars bu ñu enregistré bëccëg xam ni oto yaa ngay daw camion yee yuuxu moto yee accéléré gone yee tëb gis nga waaye bu dee guddi nag activité yooyu yëpp bu ci ne teg gaañi teg nañ ko ci suuf lépp na tekk da gis foofu déglu ga na muy mel motax kon yow muskallaf mi fexel ba waxtu wowe nga gor gorlu bokku ci ña nga xam nii daañu ca fexe dundal aslaf ci julli ci njàngum alquran ci khalat ci setantal ak yu demé noné إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن فصل بالليل من بتك بموم أمغتي di dem ci say soxla ne ci say mbir ak say yëngutu di dukki dukki di dem ak dikkaat di tuñ tuñi ne ci kër kër foofu kon teewlu ga nga xam ni moom ngay am guddi gi ci bëccëg gi du ko tax a jàppandi noonu du ko tax a jàppandi noonu mango ndax liñ naan xol mënta jàpp ñaar ca la nga ne rek sam xel say yitte ca koy def waaye nag bu dee guddi gi moom guddi day fekk nga teg ko ba ci bi sax for nga fi bët aw nelaw jaar na fi te ku wax nelaw wax yenneeku boo xam ni yenneeku biir la maanaam yenneeku goo xam ne xel mi da koy yenneeku mbir yu bari muy spirituel occupation yi ndax léegoo lekk ay nelaw moom boo dee seet dañuy gis ne ki mu gën a yomb rek mooy ki xelam gën a dal kon kooko mooy ka nga xam ni bopp baa gën a woyof nga léegoo léeg bu bopp bi diisee moom ay nelaw du la yomb ma kon boo xoolee noona bopp ba di oyaxe kon fekk na nga summeeku nga yenneeku ci tuñ tuñ yu bari ba nelaw dox ci diggante bi nga daal di jóg nag jóg nag fas yéene taxaw ci dundal lenn ci guddi gi ci julli ci jàngum alquran ci zikr ci xalaat aka aka settantal muy waxtu woo xamante ni nii waxtu wu jàppandi la ngir loole bu ko defee kon mbokk yi dañuy daldi teg fii sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq defal leen ko دفل تيسير دفل لنكو دفل عافية دفل لنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته